moo indi jun ñëpp waaye temps ñu tënk te ku ñëpp bokk lu ci waay am mu doy la madame la présidente ça ne fait même pas dix jours bi ma jugee Paris dix-huitième au cœur de la banlieue gis naa fa say poster cela veut dire que banlieue bi ak diaspora bi bàyyi nañ la xel muy témoignage bi may def ca Paris laa tollu gis say poster ca sénégalais merci mu Birmanie bàyyi nañ la xel diaspora bi bàyyi na la xel buur jërëjëf merci beaucoup ki ñuy introduire nag mooy madame Ndeye Issa Mbaye ñi àndal Ndeye Issa Mbaye taxaw ca kaw ma gis leen merci beaucoup mbir boo ko bokkee gëm ko doo xaar sa leader bi bis bi ko tëggee daa fay orchestre ngir teeru la fay ay percussionniste ngir teeru la invité ñu ñun les communicateurs de Thiès ngir ñu teeru la man nag ba ma lay xam wax naa la ko léegi du tey doo jëf lu lay jéppee doo jëf lu la réew mi di jéppee doo jëf lu lay nawetee parce que dereetu buur ak garmee ne sa yow merci nee naa la bi sa maam di den tànn tànn ca Lambaay. merci c'est le premier tànn de Lambaay. a jërëjëf ma ko dugub sa maam. merci beaucoup merci te doon góom tànn fa bi naar tànn ca fii gannaaw yaafundi. ndey sa ñëwal lat de Parar. Amady Gone Sabel Missa Saare Kajoor ak Bawal. li war a doon Vaar Stone ba Joro Fay Saas. merci beaucoup tànn ca Ndéla Njaay jaafuñ. ndey waaye kan nga àndal madame de Issa Mbaye. merci ki ki mbokkam. ci ki mbokkam doon buur géwél presse kanam jiwu jigéen ji bu tey tey présidente boo gisee merci buur li tax gisoo sa muy madame Guèye Elisabeth dafa fekk bu am dëj waaye ndey sa lu mu xewle Elisabeth dana ca war teew loolu tax gisuloo ko man nag adhéré gu ma waaye liir naa sa programme gëm naa ko te danoon waxtaan. asalaamaaleykum waa Thiès maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen wax ki leen seet si tey mooy kan Anta Babacar dafa ñëw Thiès seet si waa Thiès déedéet dafa ñëw cees fi mu bokk. parce que Anta Babacar bu ñu nee ku nekk na ñibbi buy ñibbi day aw Thiès dem Lambaay kon Anta Babacar waa Thiès la ma wax leen kuy Anta Babacar mooy ki judd na yaayam tomorrow will tell moom dafa juddu nangu ne Sénégal mooy jom mooy fit mooy ngor loolu mooy suñu ay valeur mu xam ni moom mooy jeunesse Sénégal jeunesse Sénégal mooy moom mu ni leen kaay leen ñu lëkkaloo ànd jël suñu destin en main liggéey Sénégal kokoy Anta Babacar xam ngeen kuy Anta Babacar mooy ki nga xam ne suñu valeur wane na ni ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo mooy takk sër Anta Babacar li mu gëm mooy les grandes puissances mondiales mën nañ ci seet cité almaañ seen présidente jigéen la pourquoi pas moom moom mi màgg bëgg Sénégal am jom am fit Sierra Leone kooku mooy Anta Babacar kuy Anta Babacar ki ni dafa yërëm waa Sénégal kuy Anta Babacar ki ni nañ leen bokk liggéey kuy Anta Babacar ki judd xam ni démb wees na lu bees la indi mooy la relève bokk ndey ak baay liggéey senegal ci fulla loolu nag bu bu fekkee daf ko gëm dox ko wane ko yéen war ngeen koo gëme dox ko wane ko gaa wane ngeen ko parce que Sénégal ñëpp a bëgg Anta Babacar macha allah jigéen ñëpp a takku jeune yëpp a takku ngeen ni dangeen ko koo sopp ci dara bëgg ko ci dara bëgg ko jàppale ci dara waaye defal ngeen ko gor de yal nañu ànd dem pale kooku mooy Anta Babacar wax bi mënul gudd mouvement yëpp gërëm naa leen militant yëpp gërëm naa leen mais di sàkkal ndimbal ki tax li tax tax mooy mouvement ànd jàppo liggéey Sénégal c'est un mouvement national fu ma leen wooy ngeen wuyu ma maa ngi gërëm ñëpp ci gàttal wasalaam. merci beaucoup. asalaamaaleykum waa Thiès asalaamaaleykum mbokki Kajoor asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum suñuy responsable politique arc yi nekk Thiès asalaamualeykum yéen suñuy militan ak i sympathisants de Thiès maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax maa ngi leen di gërëm yaay booy message bi dafa am solo su ma sañoon dañ koy déglu bu baax a baax a baax a baax jërëjëf mbokki Thiès Thiès yàgg na am nit yu baax Kajoor yàgg na am ay jàmbaar ay nitu jom ay nitu ngor ak i nitu kóllëre moo tax ma ne waa Thiès dañu war a fier pour nekk ay nitu Thiès ci Lat Dior Ngoné Latyr Diop ba ci Ibrahima Sarr en 1947 avec la grève des cheminots nitu Thiès dafa yàgg a nekk bañkat donc am naa fierté taxaw tey ci seen kanam ndax te ñun dañoo bokk ci ñi bañ ku ne Thiès ne benn dëkk ñaari gaar Thiès benn dëkk ñaari gaar Thiès dafa am place bu rëy ci suñu stratégie de développement pour le Sénégal Thiès à la croisée de chemins mooy xolu Sénégal moo tax mu waroon a am taxawaay bu am solo ci wàllub économie ci wàllub mbay ci wàllub napp ci wàllub càmm ji ci wàllub tourisme ci wàllub mine ci wàllub industrie malheureusement malheureusement régime yi fi jaar yépp dañu xeex Thiès ak jeunesse su Thiès naxaate lañ fi nekkee ak dige loo xamante ne duñ ko def loolu nag xarit yi ci élection présidentielle février 2024 bii lay dakkee incha allahu rabbi man Thiès waa Noto waa Jandeer waa Njar waa Thiès Nord waa Mbour bépp doomu Thiès bi toog fii man gis naa ne yéen waa Thiès pare ngeen pour la rupture man gis naa ne yéen waa Thiès pare ngeen pour la relève gis naa ne yéen waa Thiès pare ngeen pour le changement jërëjëf fi may tàmbalee nag mooy delloo Thiès ci li mu waroon a doon mooy dundalaat les chemins de fer muy otoraay yi yorin gu bon ak ñàkk a def investissement yi war moo tax régime bi fi nekk na saxal suñu chemin de fer bañ ko jëlee dénk ko ay euh, mercenaires noonu lañ leen mën a woowee ñoo xam ne seen intérêt rek moo leen tax a jug foofu la raay ba téenee foofu la raay ba jugee yàqu nañ ko wax te dee waxuma rénover terre euh, waxuma rénover dañ ne ñun dañuy renouveler waat tous les rails dañuy tabaxaat yokki kilomètre ba mu war a jaar fi mu war a jaar yëpp ba sénégalais yëpp war see mën a gis seen bopp en plus de Dakar Thiès Tamba Kidira muy benn beneen bi doon Dakar Thiès Saint-Louis bëgg naa yokk ci sama programme raay bu jaar Dakar Thiès Tamba ba Ziguinchor ak Dakar Thiès Podor Matam def jonction diggante Linguère ak Diourbel pour former li ñuy woowee la boucle du nord loolu programme boobu maa ko tuddee Arigoni mag ñi xam nañ li ma wax mag ñi xam ngeen li ma wax ñu ngi koy tuddee Arigoni dinaa ko yaatal ba bépp doomi Sénégal bu bëgg a tukki mën ko def ci confort def ko tamit ci sécurité ak fépp fu mu mën a doon le circuit de chemin de fer sera également accompagné d'un réseau d'autoroutes mbokk yi il faut que chemin de fer dundaat il faut que Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar dundaat sama yéene nag mooy pour Thiès du ñu bàyyi dara duñu bàyyi benn domaine benn fànn muy naax saayi incha allah bu ma faloo dinaa jagleel Thiès programme d'investissement bu ambitieux dinañu sokkali mbay li mbay mi jàppale baykat yi ci ay suuf yu baax ci semence ci engrais ci tracteur te nag mu ànd ak ay formation yi leen mën a accompagner ba ñuy mën a améliorer seeni rendement dinañu dooleel càmm gi aménager ay zone de paturage dugal fi ay races génétiques yu baax bëgg naa créer des espaces de stockage yu am solo fii ci biir Thiès boole ko ak ay unité de transformation ak agro industriel te mën naa nekk fas naa yéene yi tamit taxawu tourisme bi bu baax a baax a baax parce ku ne Thiès di nga gis Mbour di nga xalaat tourisme boo xamante ne dina jóge Pointe Sarène ba Mbour dinañ fi amenager ay hôtel haut de gamme ànd ci ak suñuy partenaire du secteur privé ak diaspora mbokk yi su ma faloo dinaa def moratoire sur la pêche industrielle ak bateau étranger yi yéen waa Kayar ñëw naa kayaar ngeen wax ma seen jooy dégg naa ko bu ñu faloo incha allahu rabi dinañ tekk moratoire boo xamante ne dina nekk ñetti at yoo xam ne les bateaux industriels yi taxaw ci digg géej gi di manque suñuy jën dinañu may jàmm ndax suñuy ndaw mën a liggéey suñuy mool mën a liggéey suñuy mareyeur mën a liggéey jigéen ñi mën a transformer li ñu war a transformer loolu dafa bokk ci li war a mën a xeex mbënn mi et encourager les jeunes parce que gis naa ne sonn nañu lool lool ñu koy yëg ci suñu biir xol. dinañu xeexi tamit érosion érosion côtière bi xew fii te jàppale vraiment toutes les personnes qui ont été impacté par cela mbokki Thiès xam ngeen ne njàng mi ak faju dafa nekk priorité ci suñu programme Thiès salaamaaleykum dama ne Thiès dinañ fi ubbi ay centre ak ay lycée de formation professionnelle yu bëri moderniser l'école polytechnique de Thiès mais créer fii ci Thiès un lycée militaire d'excellence dédié aux jeunes filles mooy le Prytanée militaire de Thiès waaw du góor ñi kese ko mën jigéen ñi tamit war nañoo mën a dugg ci armée bi merci incha allah dina créer ay centre de santé yu doy ci gox-goxaan yépp hôpital de Mbour ak hôpital de Thiès ñu liggéey ba relever ko à un niveau 3 incha allahu rabbi incha allahu rabbi su ma faloo dina bàyyi xel bu baax a baax a baax ci impact environnementaux ci wàllu exploitation minière bi gars yi jooy nañ ko ñun tamit dégg nañ ko dinañu xoolaat contrat yi ba sénégalais yi mu nekk mën see gis seen bopp te mu wóor ñu ne contrat yi am nañu avantage ak njëriñ pour ñun sénégalais yi ndaxte ñun patriotisme économique la ñu wax ñun préférence éco préférence nationale la ñu wax sama bopp ma la gënal du bañ naa la mbokk yi population wu Thiès ville mi ngi yokku te ñëpp xam nañ ko pour anticiper ci boobu boom démographique bëgg naa créer benn ville bu bees à Khombole d'ici 2029 incha allahu rabi di nuyu sama yaay ji jóge Khombole di ko sant di ko gërëm tamit ci teewaayam